waaw damay ñëwaat si match bi rek di leen wax nag gars yi yéen mere ngay maa di gis ngeen dagg seen yaram di wax rek el nag yaa ma gën a neex yow el nga ne yow yaay excentre bi nga xam ne yaa war a dugal yow da nga am problème tànk yow ligament croisé nga am yow match boobu course nga sooy doon waxoon naa ko keroog course ngay doon sa match ba nga ne yow yaa ñu war a sonal yow foo ñu sonalee el man nag ki nga xam ne moom laa gën a soxla sa match ba booy boo ji xamul looy fubal mais suur boobu maa lay ñaan nga fubal excentre nga fubal nu maa la ko ñaan maa yow ñu affronté man lépp loo xam si yan nga ma ko man dama ko accepté mais buñ jàkkaarloo insha allah rabbi booy ja da nga ñandu ba fa wala nga naan ndox dem bàyyi ma fa <laughs> wala nga ndox ngay reeree booy ja l'enfant nag moom kooku moom garaawut kooku daa mel tàngul gars yi nag nee xaw na ay mais naa koy boo naa ko bàyyi gars leen wax nag el nu ngi kii njaay mooy attaquant bi mooy dugal biti man maay ñëw def li may def ba mu baax ñëw tegal njaay mu dugal Tafa foo ne yaay milieu de terrain bi yaay séddale yow yaay Pedri Gonçalves yaay def dernier passe kon nag gars yi a baax incha allahu rabbi ñun dañu gañe merengue yi nag dañ leen a na tey fii lañ jël si seen revanche su ñun supporters yi nga xam ne am na fi ginnaaw ne leen ñii man maa leen wata ju loolu ay nel ñii man maa leen xëlamloo seen kanam kon nag gars yi loolu nga xam ne amoon na fi ay fan si ginnaaw bu ñu xool le premier décembre ñu koy far non non non c'est impossible le premier décembre incha allah rabbi dañuy amaan ndam gars yi di lii nag maa ngi koy wax képp koo xam ne yaa ngi ñëw sa max ba li lay rasul ñu ngi lay ñaan bu dee ab catalan la indi sa moyen barça ndax bu ñu amoon li nga xam ne moo ñu gënal buñ classé onze yi ñii dañuy sol mooy Real ñii sol mooy FC Barcelone ñu taxaw def benn photo bu sas boo xam te ni day rafet mën na dem sax ba wër ñëpp di ko gis kon daal gars yi ngeen préparé match bu baax baax le premier décembre e sama gars yi ma ko classico est que xam ngeen day amaat fii Sénégal ginnaaw bi nga xam ne ni le octobre bi jàll maa ngi doon am fële sa biir ñuy wax biir Santiago Bernabéu mag ñu bu mag a mag mën ne fii si Sénégal pour lan ñu dox si catalan yi ak merengue yi xam ne bu ne classico rivalité bi dox si catalan catalan yi ak ni nga xam nga rivalité bi nga xam ne moo dox si ñoom kii ñuy wax suñu ngi koy xat suñu grand frère organisé benn classico bu mag mag nag di gars leen wax gars man personnellement comme ni ko Alaaji Malick waxee wax nag ñi ngi lay ñaan nga ñëw teye sa mag si boobu mais dañ leen ñëw wanal leen affiche bi nga xam si ni mooy affiche waaw li mooy affiche max si ni ma nga war a fëre am gis nga mën na ne ni nga koy xat le premier décembre lay amee fële sa nu ngi koy xate stade Dakar bu Sacré-Cœur moom lay amee kon daal gars ngeen préparé ko bu baax baax di wax nag catalan yi ngeen préparé ko merengue ngeen préparé ne bokku ci photo bi tamit ku si mel ne la femme yaa ngi si biir Bamba yaa ngi si biir sama gars yi yëpp a si biir nu ngi xati invité yi nga xam si defal na li ko fa nag ñu nekk invité yu mag nag da fay am Pa Assane Gueye lébu encore borom information yi encore sama doomu nday man personnellement mañang res encore dañ koy am sa biir kon nag gars yi ngeen préparé di wax nag invitation yi ñooñ donga lañ lañ cité si biir mais dana desaat ñeneen ñoo xam si dañ teew kon nag gars yi a baax ndax incha allah rabbi ñun dañu gañe ñoo ngi gis nag ngeen dellu di dagg si di dagg seen yaram ñun dañu gañe bu soobee sama gars yi classico bi jàll na finalement Barça mujj nañu dóor waaw on accepte la défaite mais nag ñun ku ñu xam-xam ne ñun du ñu dellu ginnaaw duñu bàyyi mu sedd waaw ku ñu dóor dañuy fayu léegi ñun dañoo bëgg fayoo si Barça te xaar retour classico bi day yàgg léegi nag ñu ne ñun dinañ fayu avant retour classico bi mu ngi nii gars yi suñu grand suñu mag suñu frère Aladji Malick TV sama turandoo gis ngeen mu organiser benn match boo xam ne ñun entre les supporters du Real Madrid et les supporters du FC Barcelone catalan yi ak merengue yi daal maanaam gis ngeen moo nekk nii dimanche incha allah le premier décembre stade Dakar Sacré-Cœur gis ngeen gars yi match bi ku ko rate rate match bu neex invité yi nag gis nga ñoo nekk nii Pa Assane aussi suñu frère ak Mañang Rës moom tamit euh, si invité yi la bokk mais nag gars yi match bi euh, tout le monde est invité waaw ñëw rek na ñëw parce que match bu neex la nar a doon match bu tàng duñu leen may dara dañuy fayu foofu foofu la ñuy jëlee suñu revanche jàpp leen dóor leen dóor bëgg dee man moom waaw lu leer laa leen wax excentré laay taxaw xam naa moom latéral bu ma fa fekk moom dinaa ko buddi di ko buddi di ko buddi <laughs> donc gars yi mu ngi noonu ku bëgg gis man fi may lee gis naa nag ñu bëri di ma laaj ba xam mun nga football wala mënoo football du ma leen tontu nag ba xam mun naa football wala mënoo football si boobu noonu match bu neex la a revanche ñun le premier décembre incha allah <laughs> l'heure du revanche a sonné revanche a avant l'heure revanche classico Barça Real sonné na revanche fan lañ koy Santiago Bernabéu eh, yam leen Santiago Bernabéu foofu footballaatuñu fa classico parce que jot nañ faa am humiliation humiliation 4-0 mais mën nañoo jël suñu revanche vite fait nu mu gën a. xew-xew mag voilà ki nga xam ne mooy El Hadj Malick TV moo ko kere El xamul mi ngi si YouTube mi ngi si TikTok boo tapee El Hadj Malick TV gis ko voilà moom nag moo créé moo organisé li nga xam ni moo di classico bi di Barça Real pour waa Real mën a jël seen revanche voilà bu ñàkk jom nag ku ñi woo yéen ñëpp nga nekk influenceur nga nekk nga ñàkk nekk influenceur nga nekk abonné ak yëpp voilà l' essentiel mën a football ku mën a football woowu ñu la voilà classico bu neex booy njàgg ñaaye boo Diagne Ndiaye comme euh, nan laa leen mën a tëkkalee Vinicius Gavi voilà kan mooy Vinicius kan mooy Gavi xaw ma voilà Vinicius Gavi ñoo xam ndax ñoom ñaar xuloo matin midi soir voilà mi ngi amee fële nga xam ne moo di Sacré-Cœur le premier décembre yi nag ñuy nekk ki nga xam ni mooy paasan ak ki nga xam ne moo di mañang ya rës ca sacré boo kenn tardé buñ ko nettali kenn tamit le premier décembre lay am match de gala organisé par éragement Hadj Malick Ndiaye fële ca Sacré Cœur kon nag sama gars yi soo mënee football te xaalis yi daal nga ñëw waxuñu kenn bul ñëw ku mën a ñëw na nga ñëw ku mënta ñëw nag ñu xam ni yàlla noonu la ko dogalee nice.